RFM matin 7h40 sunu gan Boubacar Seye alaikum. Babacar maaleykum salam. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène di fàttali yaa jiite ONG bi ñuy wax euh, Horizon sans frontières yittewoo wàllu tukki migration euh, dem ak dikk ci réew. coronavirus gi nga xamni euh, amna kenn ku ñu nemmeeku ne mii ngeeg mom ci Sénégal. Euh, ci wajaase la ko jëlee boo sàggantul ndax euh, France la cosaano demoon fa vacances ñibbi si waat Sénégal gi nga xam ne ci fi lay liggéeyee indaale ko kon euh, jàngoro joo xam ne la li koy lawal fi ñu toll nii bokk na ci dem beeg dikk bi ci ci diggante yi réew ndax loola pexe amoon na ci. waaw effectivement Babacar pexe amoon na ci parce que comme ni nga ko waxee jàngoro joo loo xam ni tey dama wax ni. le principal euh, vecteur de la propagation de cette maladie, c'est la migration. Il y a un lien entre euh, la migration et les pandémies euh, depuis que mbir commencé on avait tiré la sonnette d'alarme pour voir, ni de bu ni Sénégal Afrique sax ñu généraliser nous sommes sous la menace euh, vu contexte bi euh, parce que dañuy recadrer débat bi dans un contexte mondial de mobilité croissante parce que question de mobilité là parce que 850 euh, wax ni millions de personnes voire 1 million de personnes 1 milliard de personnes 850 millions ba 1 milliard franchissent chaque année une frontière donc tey contexte mondial de mobilité lañ donc tey soo xoolee la vitesse de propagation de ce virus dafa dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo ba jaaxal àddina bi yëpp loolu moo tax dès le début rek Horizon Sans Frontières tiré la de d'alarme ni am na menace la menace est là. am na am na ñuy ŋàññ euh, Sénégal ci euh, matuwaay yi nga xam ni ñu ne waroon nañ ko jël ci fu ci mel ni aéroport ñu ni jëluñ ko ca mais li nga wax nii buñ ko déggee day wan ni amul euh, matuwaay booy jël. ba bu yëfi war a yegsi rek yegsi ndax ne surveiller frontière aéroport fa. waaw xam nga euh, euh, depuis kañ xam nga ñooñu au moins euh, taxaw nañu wax avec une gestion très transparente tey fii soo déggee démb la wax mais. Hmm. nga tourné waa déggaat wax mais est-ce que. Euh, tey actuellement damay wax ni euh, l'heure c'est à la à l'union parce que tey y a une panique générale soo xoolee depuis depuis démb euh, depuis démb nit ñi dañu jaaxle kon tey je crois que tey démarche bi ñu war a jël c'est une démarche de gestion de crise dans un élan patriotique pour xool nan la ñuy réduire les risques à des proportions tolérables mais man ci sama gis-gis matuwaay des na ba léegi parce que nous, euh, ñëpp nu ñu def ba dugg boo dégloo démb sax di nga dégg dans la presse ñu ne euh, am na ay cas yu ñu fi fàcc kon feebar bi mu ngi fi ah, voilà maintenant euh, tey ban démarche le Sénégal war a jël pour. limiter les dégâts parce que je damay rappeler ni le Sénégal tey dafa vu sa position géopolitique vu sa position géostratégique fii ci Afrique. Euh, Sénégal est un laboratoire de mixité et de migration euh, l'Afrique est une terre de mobilité avec plus de 41 millions de migrants internationaux 19 millions de 4,5 millions de migrants en provenance de reste du monde dafa mel ni sax soo defee une lecture yàlla dafay dafay dafay dafay dafay day day day régler problème bi. parce que à un moment donné coow li problème ci lan. coow bëri woon na fi coow bëri woon na fi ñu ne ay étudiant duñ ñëw parce que un risque dañu ti tey gan moo indi loolu ci dëkk bi. donc je crois que loolu y a une lecture bu ci sénégalais yi war a def yooyu yëpp pour wax ni euh, la gestion de de de de de cette. pandémie là je pèse mes mots parce que tey euh, dépassé nañu épidémie parce que cinq continents du monde. mais yëgagul pandémie ci xaymay euh, OMS. Euh, voilà di kuréel nga xam ni ci àdduna gépp moo ŋànk wàllu wér-gu-yaram gi. loolu loolu la ñu comprendre gul ci pandémie parce que li ñu wax yëpp li ñu waxul dafa bëri. moo tax il faut une gestion transparente parce que c'est une question de santé mondiale xam nga les risques sont majeurs ba nga xam il faut que nous nous wax parce que tey lan mooy pandémie. Et pourquoi l'OMS, jusqu'à présent, pas utilisé le mot pandémie » alors que les foyers sont là Il y a plus de 80, millions, 80 000 personnes qui sont affectées à travers le monde. 000 personnes L'Europe compte plus de 3 000 affectés, etc., euh, etc. Donc pourquoi nous avons beaucoup utilisé le mot pandémie euh, ñu jël euh, euh, foyer ñu jël seulement la Chine comme foyer alors qu'il y a d'autres foyers loolu yëpp c'est des choses à revoir. parce que y a des questions géopolitiques yeggali ko. maanaam yan matuwaay la a jël fii ci réew mi ngir. ba nga mbir mi jéggi il faut que nous xoolaat la gestion des frontières. parce que il faudra que ñu teg une gestion comment on appelle une démarche de gestion de crise avec euh, euh, une démarche de, planification de modélisation et d'analyse systématique pour mener euh, pour juguler le problème maintenant au niveau des frontières il faut que nous voyons ko lan moo donc il y a des failles Bon dispositif il faut que nous xoolaat ko dispositif de détection parce que mangi ne sais pas benn bu wax importance parce que période d'incubation bi ci ko 15 jours la mën nga à l'aéroport amoo benn fièvre nga dem transmettre ko maladie bi il faut que ñu xoolaat ko les spécialistes sont là je crois que aujourd'hui dans une démarche participative war nañu toog xool euh, euh, ban matuwaay la pour que euh, mbir mi du fi indi ay dégâts parce que vu la faiblesse de nos structures sanitaires vu la faiblesse des structures étatiques su fi duggee rek dina indi ba gestion des frontières il faut que nous xoolaat euh, les frontières parce qu'il y a une porosité frontière. Nous nekk ngi wax aéroport bi ci lool sax lay euh, euh, la la bëgg laaj ndax ngi wax aéroport xam nañu de façon physique formelle aéroport amna port amna Il ay poste de contrôle amna fa waaye ni nga ko waxee réewu Afrique yi frontières bu la neexee fu la neex jaar te kenn du la gis itam. bëri na ci les les questions de mauvaise gouvernance la mal gouvernance yooyu yëpp tax na ni les frontières africaines la pratiquement ku nekk ku bu dee bu dee Sénégal am na ay ay sénégalais yu jógee dawal seen oto jógee Italie jaar Maroc jaar Mauritanie dugg si si Sénégal euh, foofu itam euh, naam kilifa yi nañ euh, jël nañ ci matuwaay waaye am na ci ñu ci am njàqare lool ndax yaakaar nga ni ni muy demee ci aéroport yi mën na ko demee ci yeneen poste frontières yi. mais ben, absolument c'est la gestion des frontières foofu la faay bi jógee donc il faut tout revoir tey il faudrait que ñu xoolaat. Hein, euh, renforcer les dispositifs sécuritaires, renforcer les dispositifs de contrôle au niveau des frontières. Parce que sinon, après, il y a problème mais malheureusement, so xolé demb ni ni, annoncer affaire tout d'un coup on parle d'une réunion de crise

xam naa pour pëndal politique rek. mu xëy woote ba ndaje mi jeex nag mu wax ni am nañ benn kaak ñoom seen. voilà loolu moom xam naa ni wëndal nañ ci média yi ak askan wi. ci wàllu marketing euh, ak xeet googu. mais absolument c'est parce que c'est une question de, santé publique hein. il faudrait que nous fassions attention euh, pour que nous indi ay il faudrait une gestion beaucoup plus transparente pour euh, gérer ce problème là mais bon, il y a une mise en scène les gens ont compris le virus il est partout il faudrait prendre des dispositions euh, renforcer la sensibilisation euh, ci Sénégal parce que li Europe le Sénégal wax naa ko sànq euh, contexte bi ñu nekk la vu la position géopolitique géostratégique du Sénégal vu la la présence massive de la communauté chinoise euh, fii ci biir Sénégal massive et et et visible. euh, vu que aussi leen gën a ñi ngi doon yaakar bu ñu am ka peut-être euh, ku jóge Chine lay nekk wala ku jóge Italie mais gis nañ né mu jul fofu France. ku jóge waaw moo tax ma ni la yàlla yàlla noppi na xam nga wax ji def fi bëri won sur le cas de ces étudiants des Sénégalais qui qui mais, mais européens ils sont mieux fi ñu toll ah, ben, de chinois mais ben, mais ben, voilà donc euh, il faut que nous full, ko est on est dans la gestion des frontières sinon rek man. bika. cas loo bëgg a wax foofu ñu tëj frontières européens non pas tëj parce que nous on ne peut pas parler nous dans notre philosophie nous wax fermer les frontières mais quand même nous jël parce que gis nga li France le nombre d'infectés su en France bu daloon fi Sénégal ben doomu sénégalais dootul dugut France comme ni ko nexé comme ñom niñ fi nous ni ñu fi nexé parce que tay je crois que amna lu amna lu yalla bëgg woné amna aussi lu wara a interpeller la conscience euh, euh, euh, nationale sur ce cas là ki fu indi ki ñu wax ni moko fi indi français la y a une réflexion à faire sur tout cela je crois que nit quand même font des spéculations sur mais ça. mais quand même nguur gi depuis le début am nañ dispositif prévention bu ñu ci aéroport euh, ku ñëw nee nañ ñu contrôler ak yooyu ak ay caméra thermique ak yooyu noonu est-ce que loolu day wane ne xëy résultat yi amul wala dafa doyul pour yow. non doy doyul wax naa ko wax nañ ko ci ay débat wax ko fu xam nga le virus n'est pas le même am na ñu wax ni euh, c'est des dispositions Ebola yi lañ jëloon le virus n'est pas le même c'est pas Ebola donc euh, xam nga aussi le problème du Sénégal loo wax ñu mim ñu weddi quelqu'un qui avait tiré la sonnette de dem itam ci ndaje président République nee na un milliard millions à l'échelle d'un État un milliard quatre cent millions moom euh, du dara voilà et pourquoi ñu xaar ba et pourquoi nous nous nous avions eu à tirer la sonnette de ëpp na un mois pourquoi nous xaar ba pour une benn plan d'action ça veut dire que donc le virus était déjà là. Nous, nous avons fait un débat avec le directeur de la prévention qui dit que des Chinois sont venus le voir, Nico, nous sommes fièvres et ñooñu ñu ngi avons jóge woon nouvelle en chinois waxoon nañ leen ko ñooñu ñu ngi dugg Sénégal nu leen neexee ak yeneen ak yeneen je crois que loolu yëpp lu ñu war a la parce que position stratégique du Sénégal moo tax ni Sénégal ku war a jël ay matuwaay la ci wàllu feebar bi parce que wax naa ko sànq laboratoire de mixité et de migration la boo jëlee dans le domaine des migrations internationales en Afrique de l'Ouest 42 des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique et le Sénégal. Le Sénégal attire. Banenbi, euh, euh, nous sommes dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures. Il y a un dumping migratoire au Sénégal. ñëpp ay kan de fi indi Les français la wax fi les enjeux sont là le danger est là je crois que l'heure n'est pas à polémique mais rôle une stratégie commune de gestion de cette crise-là dans la transparence pour mener à Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui. yow euh, yenn waa Horizon sans frontière yow déggoon nañ la bi mbiri xewee Wuhan étudiants yi fa nekk euh, chaque fois nga wax ne ne indi na indi président Macky Sall ne bu leen indi woon euh, am Sénégal amul matuwaay yi war yëpp pour indi leen est-ce que tey histoire joxu ko dëgg. moom ci boppam parce que tey ji bu ñu ñëwoon ak risque bu naroon indi pour. non mais histoire histoire nu mu joxee dëgg parce que tey da nga doon bañ say doom ñëw. doomu jàmbur moo fi indi feebar bi. mais ñële ñële bu mais ñooñu feebaruñu. non mais Boubacar Seye foofu moom Macky am na dëgg ci ñëpp. mais mais foofu moom wax dëgg yàlla am na ci dëgg ndax bu doon loolu rek. bi fi feeñee Italie Lombardie di région bu nekk ci Italie. Ah. Euh, nga xam ne fa la Milan ak ñeneen nekk bëri sénégalais lool daanaka trente six mille sénégalais jàngoro ji feeñ fa. loolu mooy boo indi woon waa Wuhan nga xam ne treize dañu woon. Vous faites ci Italie da ngay rapatrier 36 000 Sénégalais yi. le schéma n'est pas le même ñi nekk Italie ils n'ont jamais demandé et ils vont jamais demander à ce qu'on les rapatrie. non vous ñu logique pour logique par exemple nous indi fait ñële ñi bu ñu leen dara aussi mais il faut lever l'amalgame Ndiogou ñooñu dañu nek en situation de détresse mais on les met en quarantaine euh, Afrique du Sud dem avion donc sénégalais yi Italie mais mais ah. euh, risque gis Italie su sénégalais parce que le schéma n'est pas le même c'est-à-dire il faut pas que nous ñu ñu amul kenn kuy nekk Europe vu les faiblesses des structures étatiques yi am Sénégal ñu ne ñël la une Sénégal déedéet nga dellu si déedéet wan c'est autre chose ñooñu feebaruñu dañu nekk en situation de détresse mais am ñu droit wax ni dañuy dellu seen dëkk les autres pays l'ont fait donc président bi ci boobu ba léegi man d'accord ma ci am na non non non ah, tey la réflexion mooy lan ñoom dañ doon bañ ñu indi ay doomu sénégalais ni dañu am risque mais keneen tey moo ko fi indi ah beneen doom beneen beneen nit moo ko fi indi tubaab moo ko fi indi je crois que loolu am na luñ ci war a jàngat mais dire que le président a raison sur ça moi je ne suis pas d'accord parce que nous, fait fait. mais ce dossier là man dañ ko sax politiser parce que nous nous Nous, Nous, tamit boobu lañ ci mais dañu wax ni euh, la déclaration du président de la République dafa indi encore les failles faut poser la problématique liée euh, euh, à la à la à la à l'assistance hein, diplomatique et consulaire des Sénégalais de l'extérieur foofu mo amone faille parce que ay Sénégalais suñu amé y ci ay difficultés dañu bëgg ñu delloo si leen dañ leen war taxaw maintenant que Sénégal amène des dispositifs ou pas je crois que le débat n'est pas n'était pas à ce niveau-là Sénégal à l'instar des autres pays dafa waroon jëli ay doomam mais que cela nous tienne aujourd'hui avec l'éclatement du virus avec confinement tout va être très compliqué loolu waxoon nañ ko parce que course contre la montre lañ nekkoon mais ñooñu comme ñu ngi si jàmm alhamdulilah maintenant le débat mooy nan la ñu mën le Sénégal ba nga xam ni les proportions parce que tey dëkk bu mel ni France jaaxle na Italie gis nga y' a plus de 50 morts kon Sénégal tey bonne stratégie la war a mën euh, vu la précarité vu les structures des des des la faiblesse des structures euh, sanitaires ba nga xam ni euh, li du fi du fi du fi du fi du fi du fi du fi comment on appelle du fi répandre du fi indi ay parce que su fi duggee rek te ñu bëri tey nañu ci vu scénario bi ñu que feebar bi mu ngi fi woon feebar bi mu ngi fi woon léegi ils sont obligés de le dire maintenant biñ ko waroon wax biñ ko waroon wax yàgg na bi ñu waroon aussi jël ay matuwaay yàgg na maintenant nak je crois que c'est l'occasion de changer de paradigme c'est l'occasion de de de de de de communiquer sur ça parce que le grand problème dans ce pays-là c'est la communication on ne communique pas dañuy nëbb pour des questions politiques lii encore une fois c'est pas un dossier à politiser c'est pas un dossier à politique, c'est un problème de santé publique et il faudrait que ensemble ñu jël ay matuwaay pour mën a aar réew mi. bu dee ci li ngay yëngu wàllu migration euh, lu ci lu ciy pexe sax sànq duñu ko tuuti ne bu fekkoon sénégalais yi ñoo am coronavirus euh, ci dayo bu am solo buñ dé dem ay Europe ak yoon du nonu euh dañu bëgg nga léral ñu sa xalaat fofu nan la hmm. nan la français bi daf ba dugg fi sans aucun problème tey Sénégal ñëppay dugg wax ngeen ko léegi am na ay temps Sénégal boo amee 50 euros dugg parce que il y avait un visa. un visa donc vous imaginez que tey Europe soo ni woon cinquante euros dugg Sénégal yëpp màbb nañu Europe donc il y a un problème. y' a un problème. aussi visa googu ministre intérieur junjoon na ko ne dañ koy indiwaat boobaak léegi sottiwul ambassade ambassadeur France sax bi ñu ko invité fii ci émission ci RFM mi ngi leen di xaw a kekkantoo ne mel ni bëgg wax ni nguuru Sénégal day suub rek di ko def luy sa position ci loolu. ñu delloowaat visa yi. par contre euh, bon j'ai pas apprécié la déclaration de l'ambassade de France Moi, warul taxaw pas sax nous imposer visa vu que bon euh, visa c'est une c'est une violation des droits humains c'est une violation de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme donc notre position est claire là-dessus maintenant pour des principes hein, de réciprocité vu contexte de hein, Sénégal su fait établir un visa d'entrée la mesure peut être salutaire mais à condition parce que dañ koy parce condition il faut que euh, l'obtention de ce visa là mu euh, des conditions pour tout le monde parce que euh, l'Afrique de l'Ouest dafa am ay de libre circulation tay mënoo jël wa Afrique de l'Ouest wala africains yi nga sonal leen tubaab yi di fi duggee nu leen neexee ba gis nga demb euh, lim fi jur ci dëkk bi parce que nee nañ moko fi indi. donc je crois que loolu il faut que ñu xoolaat ko benen bi euh, euh, il faut pas que mu pour des raisons de morosité économique parce que Sénégal dafa soxla xaalis mais buñ buñ defaat buñ deful attention itam euh, yefi mën na jur ay boddikonte ci digënté ay xeet ak ñom sen buñ nan tubaab ba nar ba nangam est-ce que l'OL tam du une stigmatisation. mais justement il faut éviter la stigmatisation L'OL, c'est le combat de Horizon sans frontières. ñun on est on est on est c'est-à-dire que c'est les Nations Unies qui sont faibles. ah mais non, l'OL, l'OL, c'est la déclaration officielle un français on ne stigmatise pas mais c'est la la la triste réalité au moment où dañ doon bañ seen i keneen fi indi ça c'est important il faut le signaler maintenant euh, sur les visas je reviens parce que il il faut pas que mu nekk Euh, mu ngoog euh, waxtoo ñu dab Boubacar Seye di la gërëm ci ci teewaay bi di nga ko yeggaleek waxtaan bi ak alaaj njogu jën ci kanam ci beneen fànn jërëjëf euh, mbokk yi ñu topp ci subaak léegi ci 6 heures du matin ci RFM matin ci TFM ak RFM yéen ndoog jàmm